ولقد كرمنا بني آدم وأملناهم في البر والبحر ورسقناهم من الطيبات وفللناهم على كثير ممن خلقنا تفليلا وجدت وجهي من تجري محبانا في سير مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تقريمه بانا في سير مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه asalaamaaleykum wa rahmatullah rabbi auzu bika min hamazaati siyaatin wa auzu bika rabbi an yaxdaroon barkeb xab Abdou Karim Mbacké mu sëriñ Falelu mbokkum juleen mbokk taalibe waaye mbokkum internet seen mbokkum taalibe soxna maam Diarra Guèye moom sëriñ Abdou Karim Mbacké mu sëriñ Falelu moo teew fii ci Ndindi mu sëriñ Abdou Karim Mbacké mu sëriñ Falelu ci diwaanu Jorin maam làmp Fall ci diwaanu Diorin maam Lamb Fall di feeñal liggéey waa BMD bi di wax ne ment mbokk internet yëpp ñoo ngi leen di ziar leen jox seen wàccuwaay waa di leen biral nag liggéey bi xew fii ci BMD fas yéene dugg ci dal yëpp rek yaatal leen liggéey bi bu baax a baax a baax a baax a baax waaw leen pàcc bu nekk rek ni mu ni mu ni mu tëree waaye nag liggéey sëñ Fall bi fii ci Ndindi waaye nag jàmbaar ji gaynde gi Diorin maam Lamb Fall ni mu koy doxalee fii ci Ndindi kon ñu dem dugg ci dal yi rek daal di woon gars yi mbokk internet yi waaye mbokk taalibe yi waaye waa Ndindi yëpp nag waaye mbokku jullit yëpp nag ñu teew teewlu xool waa liggéey bi nag bu sell bii nga xam ne jàmbaar ji lom bi nga xamante ne muy jur Maam Lam Fall moo xam li sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëriñ Fallou bëgg mu mettre ko en place muy lan BMD organisation éligier pour mettre en pratique les idées de Cheikh Abdou Karim Mbacke mu sëriñ Fallou ak ci ñu dugg ci biir daal jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ziaraat ñëpp waaye di joxaat ñëpp seen waaye comme ni niñ ko waxee woon sànq rek que dañuy dugg ci dalu BMD yëpp waaye gisa jëwri ni ñu am lu ñu leeral tuuti rek ci lu ñu tënk ci liggéey bi ñu ngi ziaraat ñëpp bu baax a baax tey ñoo ngi ñëw dalu Kébémer bokk ci dalu waa Kajoor ñu ñëw seet si jëwrin Mamadou Thiam bokk ci jëwrinu Kajoor yi mu am lu mu leeral tuuti rek ci ci ci ci liggéey bi ndax moom jàmbaar la di gaynde ci biir BMD waaye kon buñ ko seesee rek lu bari war naa mën a feeñ ci liggéey bi jër Mamadou Thiam ñu lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay imaam tënk ci lu ci lu am solo lu tënk rek loo mën a wax tuuti ci liggéey BMD bi rek bu baax di bu wér di tuub di jéggalu ñoo ngi dog ngant nag bu baax ndax ay dongo yu xeeboo xeebu lañ. tuuti nañ ci di wax ay kaddu waaye rawat na lu jëm ci BMD ndax ñun as ndongo su xeebu lañ si waaye dañ ci sant yàlla bam nu ci boolee rek yàlla munu boole ci liggéey bi ndax eh, garab goo xam ni ci toolu Sëñ Tuubaa la saxee maanaam saxe ci waarum Sëñ Fallu loolu ku ci yàlla boole war ngaa sant waaw ah, liggéey bi daal sant rek la ñuy def yàlla moom mi nu ci boole waaw loolu moom la ñuy sant yàlla bu baax baax a baax. waa kay jërë ngeen jëf moom internet comme dégg ngeen lu am solo lool jëwriñ Mamadou Thiam wax waaw noonu kasa la moom jëwriñ la jëwriñ ju màgg ci ñun mooy jëwriñu waa Kébémer ñu ngi koy jaaraat baax di ko jox wàcc waayam waaye xanaa nga sànne ñaari cadre ci kilifa gi suñu baay jëwriñ Mame Lam Fall rek allah. Ah, waaw kon dañuy tubaat rek ah. jëwriñ xanaa di ko ñaanal rek mu yàgg lool ànd ak wér naal yi mu am yëpp saa borom yeggali ko ndax it jëwrin moom kaddu gi gën a foor jëm si moom mooy kàddu yi Cheikh Abdoul Karim di wax te it wax dëgg fa yàlla ñun ñu bari teewe nañ ko sëriñ bi di yëkkati ay kaddu ci moom te it bi ni wóolu na ko loolu rek moom doy na sëkk ak it wax yu baree bari kon moom dañ koy ñaanal rek akit di ñaanal mbokk taalibe yi yëpp ni ñun ndongalu xeebu lañ waaye daayira bi sànq da ngaa tudd Kébémer rek waaye daayira yi Kébémer a ngi fi waa Ndand Géwul Sagata Lompul Richard-Toll Darou Mouhty Peex ak it waa Naxej ak mbokk taalibe yëpp muy ci góor yàlla yi soxna yi ak meer bëgg fàllu yi ah ñoom daanaka lii lépp ñoom la rek ñun moom as ndongalu xeeboo xeebu lan si xanaa di leen sant bu baax yéen it maam ci teewaay bi ak it yaatal gi ak it màggal gi moom ñi ngi ñaan bu baax a baax seen eh, jumtuwaay yi ngeen di yaatale saa gën koo yaatal rek ci doole Sëñ Fallou doole bis bi. na ngi tubaat bu baax nag amoon nañ yéene mu gën a yaatu waaye ak ak yittey màggal gi waaw waaye na ngi tubaat bu baax tey jéggalu bu baax a baax a baax jërëjëf. kon ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di bëgg ci yow waaw comme ni mu ko waxee rek Kébémer moom mën nañ ne fédération la daayira yu bari ñoo tënku ci biir comme ni mu ko waxee kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax di wax ne liggéey bi taxawaay bi am na solo doole sëñ Fallou jaa ngeen jëf bi xaqaatudil aimati li ammi ay wala lil abbas kasralmi بحق عبد الله نجل عمرا أنك في دهب ما يجر الدرر وبابن مسعود وجاه ابن سلام حين البلاء در عين وكلام أهلي بحق عبد الله نجلي عمرا أنك في ذهب ما يجر الدرر وبابن مسعود وجاه ابن سلام حين البلاء ضر عين وكلام أبسط قلبين أباد وبينما يجر سوءا ونكاد بأمنا زينب زيد ما زر مني وما بطن واجعلني وزر féexe rek di sant yàlla yi di ko yokk di sant man ko fekkee ak tal ni ñaan yàlla yàlla bu mu doon suñu mujjantalu màggal yàlla na nu yàlla may gudd fan ak wér wér la gën a jafe boole ni ci ñaan maam borom Touba Mbacke ndax coow li coow mooma di sant nag sunu sang bu tedd bii di maam Ousmane ndax coow li coow mooma man may aawa maay magum këram te ñëw ma uuf maay ndey ji seex ma dara xeebu ma dara lu dul gudd fan ak weer weer ak weer la ak di ko teewe at yi bari ndax lii kat yombul ñëw ñëw nag togg say mbana di ko jox joom jaamu yàlla yi loolu dan na sant yàlla kon yal nañ ko teewe at yi baree bari bu ànd ak weer bàyyi fi sunu sang bu tedd bii nag mu nuy tette ba sa kanam ak kanam kii mooy borom kër gi di aaw buuru këram di nabu moom la ñuy fekk si bis bu ne boo paree nga dem si moom moom it mu sànni say kàddu ay ñu ñeex a si lan yaatal bëgg nañu te bu ñu ñëwee ñu yaatan ñu bokk ci liggéey bi ñun ñëpp ñu liggéey ko macha allah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. sunu yaay booy. waaw dan lay ñaan màggal gi di la laaj noo ko gisee. ah màggal sëñ Fallou gi. màggal sëñ moom. Mhm. Mbàkke ba la neex na lool. ñu ngi ñaan rek fanu gudd ak wér. di ko ñaanal naa Ousmane Fall ñii nag su borom may ko fanu gudd ànd ak wér. moom dale ànd ak ñun ba tey yàgg na mosul ñoo wan kanam gam ñu wanoon ba fii dooga ñëw ba tey gis moom la ñu wan ak i taalibe mi baax bay bëgg a dee ñaanal nag fan gudd ak rek mu yàggee fekkee tal barke borom màggal ak sama aawa bu baax bi fàtt ne ak Ayda maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu yàgg fi te ànd ak wér loolu la wax tamit si ndongo yi si wax sant leen rek yor nañ di koy taalibe lool baax nañ yaru nañ yor nañ di koy taalibe di ñaanal maam Ousmane Fall nag mu yàgg fi lool te ànd ak wér moog Baye Cheikh Abdou Karim Mbacké ak i magam ak ñëpp ñu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal maam Ousmane gudd fan ak wér ak xéwal yu bëree baree baree bare ndax màggal gi yombut jaayante dëgg la fiy tax a ñëw ndax sëriñ sëñ Fallou yi ku jaayantewul rek pour nga yegg fi du yomb waaw yàlla na nu sëñ Fallou gën a kattanal nag sag màggal ñu koy doxalee nii waaw di ànd ak gars yi Baye Fall yëpp di leen siyaar ñoom ñi nga xamante ni ak sama yaay booy yi nga xamante ni ñoom ban jàppee ba léegi bawul ñoom ñëwal laaj la si màggal loo wax li macha allah waaw sant rek macha allah sant bu baax sant bu baax hmm. waaw Samba xam nga yow man mooy loolu mënu ma wax yaa ma gën a xam loo si ndongo yi ndongo yi loolu la si wax ay jàmbaar ngeen hmm. ay jàmbaar ngeen fii ay waaye sëñ Fallou rek fi daje ay jàmbaar ngeen macha allah li ma ci gën a nekk mooy dafa fi sama bésu sama xarit man sëñ Fallou sama xarit la waaw ñuy ñaan nag nuñ ko fekkee wee ren bu déwénee yal nañ ko fekkee waat ni te rafet fekk ci barki borom Touba macha allah yéen ay jàmbaar ngeen da ngeen baax ba sëñ Touba waaw di kontaan bu baax ci sunu papa ji nga xamante ne moom dañ ko tuddee jàmbaaru sëñ Fallou muy maam macha allah ndax liggéey bi moom xaar ci kenn ku ñëw da ngaa ku ñëw da yokk waaye wàññi woo macha allah ñu ngi kontaan ci moom bu baax sunu papa ji nga xamante ne xeebul sunu dara ndax maa gën tuuti ci daara ji mais man la ñuy jox maay dem marché bàyyi ndugg màggal moom waañ da soxna yaa ni japp na ci bo gaay ken duñu wa gis nga gaay ken duñu du ñoom allah yi nga xamantene man ay jambar ngeen macha allah wa Kër Sëñ Fallou yi man begna yal na len yalla defal jamm jere ngeen jëf begna naa. ñu lay gëreem di la sant waaw ñu wax ci bés bi. Ah, ganaw bañ sante yalla jullu ci yoonte bi. di santaat suñu yaakar tay di ma Ousmane Fall mu yàgg ta wër ta gudd fan. Mhm. te di wax nekkam bi amna fi njëriñ ndax li yëm moko waral tay kon tey du ñu am dara li dul di ko sant di ko gërëm te di ko wax tey ji nekkam bi am na njariñ lool si suñ jëmm yi ndax suñu amee doole ak yëg-yëg ak mënin te yàlla ak mooma si yoon bi te jàppee nañ ñu njabootam jàppee ñu taal bi jàppee daf ñoo jàppee ni njabootam sax def ñu si xolam def ñu lépp kon tey mënuñu daal di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram te doo màggal day gën a taw féexe rek amaana doole yooyu yemul rek bi su doole yi woon si jëm boppam dañ fi li nga xam te kenn mës kon dañ koy sant di wax tamit nak bëss bi bëssu mbekté la da señ Fall moy juroom ñaar tay bëss bi tombé ci juroom ñaar kon tamit bëss bëssu mbekté la ka si màggal rek daa ko yek ka si màggalul ko yek kon magal ko ngir yek ko kon tamit nak té nga ko dundé ah maa ngi nuyu ñëpp magal gi mom mbekté rek la ko dundé fa sama musuma mosuma ñëw ci magal señ fall ren mom mbekté rek rek rek rek la ko dundé mom wax dëgg yalla di sante mam Ousmane baax sama papa la waaw. li moom la kontaan naa torop daal yal na yëpp yemb daal ci barke sëñ Fallou ñu fekkee ko déwén yu bëri sëñ moom maa ngi si gis sama bopp sama soppe la waaw maa ngi ñaanal ñëpp fekke ko tetal waaw mu nga mu da wax kontaan naa torop yàlla mu ngi doon télévision bu mag a mag a mag am ay télévision yu bëri bëri bëri bëri ku nekk ñu am fa télévision. dama dana dama noonu maanaam ku nekk ñu fa am télévision maanaam am fa ay antenne yàlla dina def loolu. te maanaam borom dana matal lépp. incha allah tam yow ba tey fan daanaka tey dafa ci bés boo xam ni bésu suñ fan muy bésub la set. sëñ Fall mooy mooy borom juróom-ñaar bu tombe ak weeru rajab weeru sëñ Fall kon bés maanaam bu si waaye ñaan borom na la xam ne yàlla nag dana leen defal jàmm dana leen defal jàmm euh, daanaka Sam yow da ngaa baax rek moo xam ne fàtt lu ko dem waaw ndax euh, maanaam dama euh, dégg ne sëñ Fall yaakaar naa ñëpp xam ne dëgg moo xam sëñ Abdou Karim Mbacke dafa kenn si man dafa kenn bu kenn kon maanaam su ma toogee maanaam ba fii ba tey mu am nu mu demee nii rek xam nga ne maanaam sëñ la ñuy day gën a jëm kanam incha allah yàlla nag ñu bon li mu sëñ am li mu sëñ Abdou Karim Mbacke wax ba ci dem wax yi ñu ngeen di àndal ko. muy sàmm ak ak muy sàmm nekkin te du ngeen ko rëcc. maanaam bu leen ko bu leen ko rëcc kon maanaam yéen ñi ñëw fii tey nag bay jël samay kàddu ma xamal leen ni ma sëñ Abdou Karim Mbacke fan ba ki dem yéen bu ngeen ko rëcc. seen lépp dana mat seen lépp dana baax. di leen ñaanal bu baax daal balaa mu maa leen seet si Dakar la. incha allah waaw kon ñoom ñu gën a yaatal waxtaan bi. incha allah waaye xam naa man li ma waroon wax yëpp Sam Sam Sam wax na si lu bëri nag. waaye maanaam naa gën a ñëw ñu gën a yaatal waxtaan bi. incha allah te émission nga koy def sax. incha allah incha allah di gàttal yàlla. incha allah naa leen seet si Kapa. waaw yeneen Kapa. waaw naa leen seet si ñëw ñu def émission bi. incha allah incha allah liggéey bi liggéey bi moom moo woote ñu te gis nga mënoon naa leen toog fële bàyyi ndongo ñu liggéey waaye gis nga maa ngi si terrain bi sànq ba léegi maa ngi yële maa ngi si wa si wàññi ku nekk ba maa ngi si terrain ndax du ma toog ndax li mëtt mëtt la man la man bëgg gone yi li ñuy liggéey nii njëriñ li ñuy am noonu may bëgg naa njëriñ loolu te te te te maanaam du du ma taay si si si di wut njëriñ pour sëñ Fallou kon maanaam ñu leen ñu leen di ñaanal bu baax yàlla gën leen dafa jàmm bakkaal léegi jërëjëf léegi maam mu wàcc terrain bi moom it te mës na mën naa yable yablewul dem moo wàcc ci terrain bi wane ko ci téeméeri nag dem ak boppam ak yaramam mu xam nu mel si yaram ma macha allah nga xam ne tawatam xam nga ñu ñaan ñu yàgg fi lool ci ànd ak ñoom bisu bàyyam bi mënu koo mënu koo sëgg mënu koo moo tax dafa bàyyi lépp te pourtant am naa ay éléments yu ko mën a dox mm. mais defu ko de di bi démb moo ngi si dara yi di wuti nag ak sëñ Fall. sëñ Fall maam moom nit yàlla ñëwee da taxaw ba lépp rafet rek dara du maan ñoo koy ñaan rek yàlla ko. baax a baax a baax ndax nit ki mënoo ko xam tant que nekk ak moom. waaw ak jamono ji fu mu toll nii yàqu-yàqu yi dafa bëri mbëri yërëndoo bi dafa bëri. waaye sëriñ bi nga xamante dafa mat sëriñ bu la yeggale fa yàlla ko ah di la jëfloo jëfin maam Cheikh Rame Fall loolu dafay yëngu si jamono bi mu toll waaw wax ji nag bëri waaye ñu ngi nekk suñu war a nekk rek liggéey sëriñ bu baax enjoyment sëñ Fallou njariñ bi ndax seen dëkk bi Mbàkke mu sëñ Fallou moo ko wax jooju ñu lay siyaarwaat bu baax la màggal di la ñaanal nga yàgg fi tewee loolu gën a dund tey ak sëriñ Touba ñun dañuy tiitaro amuñu ku dul yow ndax lii tey ni man yow yaa di ko def ñun ci yow la ñuy nampe ci yow la ñuy rote ñun suñu ko ci yow lañ ko teg teguñu ko fédération bi lépp yow la ndax gars yi bëgg gi ñu bëgg suñ tubaab wala def seen moo leen def seen biir xol bëgg nag yomb na bëgg te muy dëgg te mu nekk seen biir xol nga koy yëg barki sëñ toll yombul waaye ñii boo leen xoolee seen laxasaay yii nga xam ni bëgg nañu barki sëriñ Fall bay Fall dama ni Kajoor ay gaynde lañ.